su ma joxee Sénégal six mois ma redressé ko six mois a redressé Sénégal donc li ma leen di ñaan mooy c'est le temps de de changer ce pays là il faut que ñu def rupture yéen ñee na ko mën a def yéen population bi Kolda wóolu naa leen gëm naa leen parce que pratique naa leen depuis des années vous êtes des hommes intègres ay nit ñu mbaax ngeen ay nit ñu dëggu ngeen mais sinon kon tey duma fi nekk ngeen may accueillir gëm naa leen wóolu naa leen j'ai besoin de vous li ma leen di ñaan mooy lëgul seen carte électeur dem leen ngeen jëli ko dem leen jëli seen carte électeur ndax billaahi je sais que li ma leen yéene li ma yéene réew mi su ma gisoon keneen ku ko yónnee billaahi ma bàyyi ko réew mi parce que li ma leer mooy fii lañ ko waxee bu des hommes politiques jalaatee réew mi dëkk bi dina metti ñu ngi fii ci Sédhiou bi ñuy jógee Bakel Kolda di artu ci wàllu jaspora diaspora boo xamee ne d'après la banque mondiale ñoom seen transaction représenté na 11 pour cent du PIB. ñëpp gis nañ ne seen li ñuy yónnee ci Sénégal mooy famille yu bëri mooy tax ñu mën a fay seen jàng xale yi mooy dundal xale yi donc ñu jàpp nañ suñu ñëwee ci réew mi incha allah bopp réew mi. jaspora day am privilège li ñu njëkk def mooy incha allah fii ak le mois de mais dañuy def assis de la jaspora boo xamee ne dañ ci boole waa boole ci waa gouvernement bi boole ci waa société civile ak le secteur privé parce que ku bëgg defar réew mi il faut impérativement surtout quand on parle de souveraineté économique suñu doomu réew yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu fexee yombalal leen li nga xam ne mooy seen dellu si buñ bëggee ñëw moo tax dinañ créer un guichet unique guichet unique boo xamee ne lépp loo xamee ne day fexe xale yi wala nit ñi suñu doomu réew yi nekk bitim réew mën a dellu si waaye pour ñu dellu si il faut ñu ci fekk il faut am teg luñ seen loxo donc ci qui fekkee que dinañ incha allah dinañ fexe moom ay subvention yoo xam ne état dinañ ko teg ci loxo diaspora bi pour dimbali leen ñu compétitif par rapport au marché yi nga xam ne mooy nekk ci Sénégal ndax li ñu gëm mooy marché yi bis ni bu ñu faloo incha allah lépp li nga xam ne mooy euh, Sénégal li ñu fay am marché yi fi nekk doomu Sénégal lañ koy jox te diaspora bi nag kenn mënul wax doomu Sénégal te xuleen diaspora bi surtout que nag li ñu xoolee encore fois li ñu contribuer ci dëkk bi ak li ñu def. il sera indispensable te ñu xam ne mënuñu def dara te ñoom bokkuñu ci. donc ce qui fait que aujourd'hui il est important que ñu ñu xamee ne Sénégal sans la diaspora du ñu dem. ñu xamee ne guichet unique boobu au-delà mu permettre retour bi mais également dina permettre transaction yi nga xam ne diaspora moo koy indi. ñu mën ko sécuriser pour que képp ku détourné xaalis diaspora ñu topp la état dina ko fay. Thank you.